seen a ngi noonu moo yëkkati loxo yoon a Eumeu Sène lu ko wàddee seeneen tey ñëw si combat bi diggante boo Niang ak Lac de Guiers boo xoolee Eumeu Sène sànq si kaw la nekkoon si tigin bi nekk si kaw ba si yàgg ba wàcc si suuf Eumeu Sène a ngi noonu daa mel day waaj a bàkku ndeysaan Eumeu Sène a ngi noonu bakaani yéen ba yaa ñu laa gaaj bakaani yéen ba yaa ñu laa gaaj mu di buñ jëlee seen mbër dañuy xabtalu ndeysaan Eumeu Sène a ngi noonu ndeysaan boo xoolee le roi des arènes xool ko waaw Eumeu Sène a ngi di dem si Boy Niang Eumeu Sène a di dem si Boy Niang dugg na si cumbukaay yi dugg na si cumbukaay yi mu ngi wax a ngi wax ak Boy ah daf tey xamul nga. waaye yow lan la ma fi def yow yaa ma def. nañ la benn tur ñoom xaaral mu fer ko gis li ngay def. daf leen benn tur daf leen benn tur. dégg naa tous neex a tous. kaay fii ma wax kaay li ma def tur ci public bi. ndeysaan monsieur da ngeen doon di dem tuuti boo xoolee monsieur da ngeen nii Babacar jël nga monsieur monsieur da ngeen nii ndeysaan monsieur. incha allah naa déggoo di ma. dégg naa lu baax. ay ko waaw daa mel day bëgg a dem tuuti. monsieur day bëgg a dem tuuti. Babacar monsieur Ndao la ndeysaan Babacar. monsieur Ndao waaj a bàq. ba ndeysaan Pikine a ngi nii Pikine a ngi nii Ama ah, Baldé Eumeu Sène ndeysaan Pikine a ngi nii Thiel Peley Thiel Peley Thiel Peley Babacar boo xoolee Eumeu Sène Ama Baldé a ngi noonu ndeysaan Sène waaj a bàkku Babacar jël na Eumeu Sène